lii la ma tontu moom Balla grand zal mhm. balaa may dugg ci bëreeg yooyu mhm. yaa déglu Balla Gaye mhm. li ma ko wax yëpp ak li mu tontu kii noo ko déggee lii avant combat bi la kera ci open press xam nga Babacar nit dugg rek ak lu mu mënti doon waaw ànd ci ak ngëm-ngëm gëm-gëm ci ak ngëm-ngëm ak yaakaar yàlla waaw yàlla rek moom rek yàlla rek moom moo fi nekk ragal daal man bëgguma ko ci doomu adama ragal non non da nga dañu la wax ne dangay ngay bëre ak diw. Mhm. mu wóor la ne diw mi ngay bëre. Mhm. nga waxaale ñu fay la. Mhm. ba nga cay dugg. yaakaar ne mën koo daan moo tax nga dugg ca. bien tey. ngëm-ngëm boobu nga déparé. ba signé contrat bi. danga war a continuer ngëm-ngëm boobu ba keroog ngay gis leneen. te Balla noonu la taxawee yaakaar naa. ay combat mi boo ko suivre noonu la mës di waxee noonu la mës di jëfee. Mhm. des fois nag mu réussir ko des fois mu mu du ko réussir. Mhm. mais en tout cas li mu wax ni daal bëgg naa ko ci athlète. bëgg naa ko ci bokk ci sportif. Mhm. moo xam sportif de combat moo xam sportif mën ti doon. lépp loo ne gëmmal ne li ngay def boo ko mënee ba pare. da ngay gëm li nga mën nag. gëm gëm li nga mën. da ngay gëm li nga mën boo demee nga appliqué loolu. té bala gëm na né mën na bëré gëm na né mën na xex say bu ñëwé ci lamb loolu lay appliquer loolu lay appliquer li mu wax rek la wara wax loolu mais sañ sañ parce que sañ sañ bi dafa sañ parce que ya daq bëré ma daq bëré nana sara ndo nga ay am tubek doole mu ne mu tudd du tibb dara kopp doole man ku daq bëré man ku gëna technique man koy daan man li de la bal la wax ndax loolu prouvé na ko wala det pour ah prouvé na ko moom. ah voilà mu ngi noonu. kon li mu waxoon li mu waxoon kay lu mu gëmoon la. prouvé na ko moom li mu gëmoon la yàlla dimbal na ko pour we na loolu. parce que loolu loolu moom moo fi nekk de. li mu la wax nii fii nii. Hmm. loolu la def. loolu la def loolu la def ci combat bi. lu ne fan kenn du ko jeex Babacar. Hmm. seulement nag lu mu gëm la wax ko. Hmm. li tax nag mu def loolu Tapha moo war a def jàngat boobu. li bala wax nii. waaw ba def ko. Tapha moo war a def ci loolu jàngat. parce que nak tamit aussi mono di wayé beure ak sa adversaire mune ma dak beure ma dak xex ma pou dole ma pou dole may dan waaw waaw limu wax le wax deug yalla lolu amna le neitam ci bir wax ji neena sama supporter ma ngi len di gëreum di len ñaanal hmm. parce que ñom dañu silviser ay noble lañu ay jambar bu bes ba nañu dag seen ay ticket ñew ñu dem ma beure duma dan non la ko defé de wax deug yalla bu dëgg rek neexe yàlla. waaw noonu la ko defee de. bëre na du mën a daan na. esprit bi mu yore lu muy maanaam euh, dafa euh, ma maanaam dafa baax ci sportif. su ma la bal am esprit gagnant. esprit gagnant. moom la am balla ba kere muy ñàkk esprit boobu lay demee te loolu nag dafa baax ci sportif Babacar. yore esprit gagnant. esprit gagnant dafa baax gëm ne man damay gagné def tamit di wane tamit lu tax ngay gagné. te bara loolu lay def loolu la def démb. Mhm. ci préparation yi wax na la ko. Mhm. damay daan. bi mu ñëwee def na lu tax mu daan. def lu tax mu daan ah, lu mu def démb xeex na bëre na daan na. bi mu gisee ne combat bi war na koo jeexal am na bunt mu. jeexal buntu mu jeexal ko mu jeexal ko te lu. kër mhm. lu bari gaa yi seetlu wuñu ko ci biir combat bi. bala saa buy bëre pied goos lay teg. léegi dinaa ñëw ci loolu mais balaa maa ñëw ci loolu mooy euh, maanaam Tapha.